na continuer su fekkee dëgg la laa wax de. Ah. su fekkee dëgg la na continuer su fekkee du dëgg na ko arrêté léegi léegi nu mu gën a gaawee ndax ñun jàmm leen bëgg suñu réew mi suñu président bi jàmm la woote. moo tax muy liggéey ci réew mi. di daw guddi di daw bëccëg pour l'équipe pour pour pour Sénégal. yaa may dégg. waaw kon nañu indi jàmm la bëgg quoi ñun ci suñu réew mi. Mhm. parce que y a yoo xamante ne ni doo sax comprendre. parce que 14 morts. Mhm. yàq fi ay bagages yu nit ah. Mhm. ñii seen pa ñi Auchan yi ñi Sénégalais yi ci doon liggéey ñu yàq ko. Mhm. ba Sénégalais yi toog nañ am na ci ñoo xamante ne ay père de famille ñoo xam ne toog nañ ay weer liggéeyuñu. lu dul lan ñaari nit. loolu moo war a mën a ñàkk. foo war a mën a ñàkk. aji tuer notre sœur. ñu ngi lay wax man de Ousmane Sonko aw ma lu ma koy wax parce que xaw ma ko man. yow sax xaw ma mais man li ma la wax rek lay wax Ousmane Sonko ngir yàlla war a suli teg leen seen yii ci suuf vraiment tey bu Ousmane Sonko génnee wax suba Adji saar génn wax xam nga du du du du yëfu nit quoi du du du maanaam xel nangu ko daal xam nga waxtaan leen rek waxtaan leen daal na na na procureur woo leen yéen ñaar fu kenn nekkul ñu waxtaan xam nga jàmm am xam nga. ci la Sénégal ci loolu la xat quoi mais boo di boo mais di nga gis nit ñu iñaan nag ñoo xamante ni lu ñu bëgg jàmm ñoom. parce que ci la dund. ñoom li ñuy bëgg mooy fitna rek. ci la ñuy dund fitna rek fitna rek fitna rek. man damay toog nit envoyé ma ay ojo nit ay vidéo nit pour yaakaar nañu suñu topp kaa bi dañ fiy toog pour yàq nit. Hmm. tooguñu fii pour yàq nit jimboor yi. topp kaa pour waxtaan la pour yeete la. pour waxtaanee la xew ci réew mi te du ñu dépassé kenn du ñu wax kenn luñ ko warul wax. Mm-hmm. mais du pour yàq nit franchement. man képp koo xamante ni comme vidéo yi ngeen yi ngeen may envoyé ak ay audio nit arrêté leen ko te xam ne man duma ko wax topp kaa bu soobee yàlla mm-hmm. topp kaa daal lu jëm ci sociale mën nañ ci waxtaan lu jëm ci loo xamante ni nii jimboor yi war na ci mën a wax ku ñu dimbali dinañ ci waxtaan artiste bu génn wax na ko sudul noonu dinañ xool nuñ ko defaree ba ba mu baax mm-hmm. mais ñu wax kenn lu ñaaw duñ dépassé kenn duñ wax kenn parce que ñu réew mi jàmm moo fi xaj mm-hmm. jimboori jàmm moo fi xaj te kenn ku nekk boo yeewoo jàmm ngay ñaan am nañu am nañu am alal lool mm-hmm. waaye amuñu jàmm barke seydinaa Mohamed nekk ñu ci jàmm ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yi mën luñ seen bopp dara kon delloo waat leen seen xel fitna bi amul benn njariñ maa ngi jéggalu nag barke sëñ Tuubaa bu baax parce que musuma wax ci dossier bi tey laa ci ma sa wax te li ma wax nii sax damaa jéngu wax ko. maa ngi jéggalu tarixa bu <laughs> voilà message bi am na solo pour que Adji Sarr déglu message boobu en tant que jigéen ak jigéen euh, wax dëgg yàlla mais nag dëgg moom fi mu féete yàlla rek mooy. ki xam ak ñoom ñaar ñi ko seq. Aliou waaw affaire bi fi mu agsi nii. waaw yi ñoo ko fi indi. man su may wax. laay dëgg la. su may wax man. du ñoom ñaar de. non billaay ñoom billaahi du ñoom ñaar. ma ne su may wax. su may wax. Mm. sénégalais yi laay waxal. Mm-hmm. xam nga lu tax. Mm-hmm. xoola doo yàq sama kër ma la koy yàqle xam nga lu tax. Mm. parce que tey xoola ndey gay bu jëloo bu jëlee intention liggéey da koy xam. bu jëlul intention liggéey da nga koy xam parce que yaa ngi koy gis. <laughs> yàq na ma nag tey. <laughs> non yàquma yàquma pour dara non damay joxe exemple. Uh-huh, uh-huh. parce que nit ki su jëlee intention yàqal la ndéygéey da nga koy xam ba pare man est ce que xam nga kan laay. non yeggaleel nga ne ma jëlee intention liggéey. da dañ koy xam ñu soo jëlul intention liggéey. dañ koy xam man bu ma jëlul intention liggéey yéen di ngeen ko xam. non yow moom chaque jour da jël intention liggéey ndax mosoo tardé benn fan. waxee man kay may tardé kat bi non man déedéet man angale laa. man lu ma soobu damay dem man. léegi man du ma àngal non xaaral tuuti man américain la ay ma gis américain. non angale c'est-à-dire. am na euh, man su may def dara dama koy def su ma ko defatul damay toog ne la defatuma pare naa ci du dëgg. Hmm. mais dama lay wax ne ñun ñii ñëpp kenn ku si nekk bu sa moroom doon jéem dara sa moroom dina ko xam. Hmm. Hmm. mais lan moo tax ñun Sénégal nit di ñëw di jéem dara duñ ko xam ba mu yàqal ñu bëri na fi. bëri na fi ay affaires yoo xam ni ay nit a nga koy joué nday gay di ci yàq dëkk bi yow sax dalay bett naan diw bett na ma quoi mais nday gay suñu toogee tey ji yow di sa doom tey sa doom jële su ne la maa yaay maa ngi génn di dem loo koy wax bu nee la ci yaay diw laay dem mhm. est-ce que yaay diw moom soo ko wóoluwul di nga bàyyi sa doom mu dem waxal mhm. mais léegi aji saar bi mu tàggoo ne day dem yaa ngi dégg. Ah. léegi ci yan loxo la tàggu ni fa la jëm. mais loolu euh, mais loolu nag Jimbori loolu c'est sa vie privée ñun suñu yoon nekk. non non man wax non non non non non non non non léegi man waxuma ak yow. mais mais yaa ngi waxtaan yaa ngi ci wala dama ñu wala ma noppi xoolal noppi naa la defal loo xam ne mais dafa am yoo xamante nag yanuwul maanaa nag. xoolal man dama lay defal ah. loo xam ne. Ah. xoolal ndéygay sama wax. est-ce que yow boo génne dem sa yaay da lay laaj foofu. waaw xaaral man fu ma jëm dañ koy xam. wax yow jumbo dafa ah. arrêté waaye. wala nit day am kilifa ba keroog muy dee yàlla moo ko wax. ndege li may waa nit su bëggul am kilifa nag. am na ñoo xam ne bëgguñu bëgguñu bëgguñu am kilifa. Ah, xam nga ndege ñoo ne moom kenn du leen eh, man man da ngay am kilifa man sama yaay dundatul. Ah. mais sama paay. ñemewu ma ko samay rakk yu góor. sama mag yu góor ñemewu ma leen. non non nit koo gis ndax ndey am na kilifa. waa déggoo li ma la wax xanaa. dama ni la. man sama yaay dundatul. sama baay moo fi nekk te yàlla na fi yàgg loolu te wér. Ah. dama ni ñemewu ma ko. mais sa yaay ngi dund. waaw. sa yaay mi ngi dund. waaw parce que maa ngi koy bàyyi xel. fu ma toll mi ngi dund. parce que maa ngi koy bàyyi xel fu ma toll. non pourquoi mi ngi dund. pourquoi xaw ma ko lu beneen wax la ndey ngay déglu ma <laughs> yaa ngi déglu. waaw ah, doo ko leeral ma wax la. waaw ah. kii fi may waxee man. waaw yaa ngi dégg. Ndeye Gueye mii du ko déglu du ko dégg. du ma la déglu parce que boo naree wàcc raay ma. yéege non non non wàcc ma raay de man fu sori laay waxee Ndeye Gueye. ma wax la dara. dama ni nit bu demee di tàggoo tey day dem fan lay dem. il faut sa doom nga ne ko fan ngay dem mu ne si yaay diw laay dem nga ni yaay diw ah rek léeg-léeg bu njëkk ba dañ daan ànd ak yow ba si yaay diw xam ne ci loxoom nga nekk ñu bàyyi la mais man laa wax de. Mhm. su ma gisoon ko xam ne kii mun naa taal sama kër. yaa ngi dégg mu dem nekk ci loxo yu ma wóoluwul dootuma nelaw fekk kooku tëddul nelaw d'accord mais ñun dañuy gis ko xam ne dafay nekk ci ay loxo yoo xam ne wóorut ñun ñëpp di xandoor di ko seetaan xoola Sénégal ni mu day ah mhm. am na leneen lu ko war a mën a yëngal yu dul yii léegi dama bëggoon ñu ñëw ci discours Adji Sarr benn bi bi mu génnee ci bureau doyen des juges ñëw jubal ci journaliste yi automatiquement dama laa woo keroog. Mhm. ne la jumbóoru yaa ni woon aji saar mii ma gis di ngeen ci jot te day xëccu di ñëw ci yéen mhm. dafa génn ci bureau bi mhm. au lieu mu dox ànd ak ñi mu àndal dem ñooñ dañ ko doon xëcc pour mu dem mais dafa dox wut ci journaliste yi taxaw xaar leen pour ñu introger ko Gabriel Kane da ko doon xëcc pour mu bañ a wax mais am na benn question boo xam ne question boobu moo ko sonal. Mhm. dafa am journaliste bu ñu naan bëgg Bamba maa ngi koy ziar bu baax bëgg Bamba. Mhm. question bu am solo nga dugal. Mhm. mooy daf ko ni Sonko daf laa laaj ana biir bi. mu ne man musuma wax ni dama ëmb. te pourtant moom moo ko waxoon. looy wax ci loolu. waa mais xam nga nee naa la yoon bu ñu demee ci yoon. waaw xam nga boo nee viol. yaa ngi dégg. léegi loo wax bañ bind ko. benn bu ci randu mhm. moo tax ma ne la keroog seen jàkkaarloo gisuma ko ndax Adji Sarr dafa danga ko topp man damay topp man du ma ñëw di wax rek damay topp nit ki ay waxam waaw ba bare xoola Adji Sarr yéen rek la bëgg ñun nekk ci média yéen ñi nekk ci média xoola aj ma wax la dara Adji Sarr ñi mu gën a bëgg yéen la ndax dafa bëgg a wax déedéet Adji Sarr balaa muy di nekk ci lii. ci TikTok bi la nekkoon. ah waaw yaa ngi dégg. yéen rek la bëgg. xoola di ngeen ci jot waxoon naa leen di ngeen ci jot di ngeen ci jot ba pare xoola bi ñu génnee ci biro bi. Mhm. yaram day wax. El Hadj ñëwul rek wax. yaram bi ni mu doon doxee boo ko wane woon nii. ak Gabriel ni mu doon doxee. yaa ngi dégg. waxuma ne am nañ liñ bëgg de. mais li ñu bëgg 100 pour cent kon jëlewuñ ko fa. maanaam dañ faa jëlee gàcce. noo seen yaram daal li mu wane. dafa yàcc dafa yàcc. Ah. man foofu laay xool de man bu nit ñi mbawti mbawti sa réaction laay xool. boo ko wanee yaa ngi dégg. rouge. waaw xool gis nga yoot yi xoola kële fa mu làqatu ca gannaaw gis nga kële fa mu ne. xool ko xoola fa muy dox. Ah. xool nga ko fële. ak loxo yam croisé les bras. waaw waaw waaw bu femme bi demee moo leen koy libéré est-ce que est xoola léegi ma wan la dara. Ah. xoola nit bu dul woon man bu doon may bu doon may yow. Hmm. xam nga lu tax ñu koy aaye nit. bu doon maay yow manaan naan ndey bu doon may yow du ma ndey yow la may doon ndey gay. xoola affaire bi déglu ma bu baax dafa àgg ci bu doon may yow léegi moom la bi ñu génnee laa wax de. déglu ma de. bu doon maay yow de li nga nangu duma ko nangu du du yow. du dëgg fii dañoo wan aji saar ni du ñun yow la moo tax ñu puus ko mu dem da ko waxal kan moo fa wax moom moo wax loolu moo tax nag saa bu ñu lay digalati ak ku lay mën a digal moytul mu mooy mun na deel moytu mu digal la bañ laa dugal ci mbugal fu mu toll ni moom dong moo wax mhm. ana taxaw waxal parce li lay wan ni maître El Hadj Diouf jëlewu fa argument bu baax dafa dem dagg benn affaire bu ndaw yóbbu ko ci Pape nga Ndiaye gars yi xëy yeggaleel ko la Sonko doon wax moo lay xoola vidéo bi ngay jël mottali ko ci vidéo bi mu génnee ci tribunal bi man noonu laay jafee jàngat bala maa ñëw rek fekk na nit ki moom jàng naa ko waxuma ne damay jàng nit ki nag pour am ko pour cent pour cent mais man saa bu may jàng nit li ciy intérêt réew ma réew mi laa ciy wax aji saar nit la Adji Sarr sénégalais la Adji jigéen la dañ ko war a yiir yërëm ko Sonko nit la sénégalais la dañ ko war a yiir yërëm ko Sonko bu nekkul ci dëgg dañ ko war a teg ci dëgg Adji Sarr bu nekkul ci dëgg dañ ko war a teg ci dëgg mais ñetteelu nit ki ñaari nit ñoo jote mais ñetteel bi ñetti nit ñoo jote te ñun gisuñu ñetteelu nit bi ñetteelu nit mooy kan moom mu ngi jooy rek boobu léegi waaw keroog fii ba ngaa ñëw ma ne la senegaal gi mënoon naa nekk sëriñ daal di ami bi ndax mu am ñu ko xeexal wax naa la ko bee paase bàyyi woo ko xel mhm. léegi dama lay wax xar kanamu xar kanamu dossier bi xar kanamu dossier bi fan la toll nii fu mu toll hmm? fan la toll d'accord bi xam nga fan la toll nii xar kanamu dossier bi voilà léegi voilà dañuy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy wutiwaat man dafa mel dañ koy delloo à zéro indiwaat. pour parce que Sonko dafa ne Adji saar euh, euh, kii euh, xaw ma nan ku yaru la xaw ma. waaw dafa ne ku ku dal la. ku dal la waa kee génn après Adji saar génn mu ne ko man sama papa. ku responsable la. ku responsable la. waaw discours boobu sax ci lañ jëm si mooy Adji Sarr ne na ko yow da ngaa irresponsable. waa Sonko dani ko daf ni ay mbokkam jéem leen récupérer seen doom. waa parce que ñu ngi koy manipuler. waaw donte ni moom ku dal la Sonko. Sonko nee na Adji Sarr mi mu gis ku dal la. waaw ku am respect la. waaw waaye nag dañ koy manipuler. ci la woowee ay mbokkam ne leen jël leen seen doom Adji Sarr ne ko. sa yoon nekkul ci samay mbokk. waaw yow da nga irresponsable sama papa dafa responsable. waaw say partisans ñoo may wax baatu caga. waaw caga nag moom xam ngeen li muy tekki. ba pare ne ko nag bu fekkee man cagalaa mhm. yow Sonko kon xamal ni yaa ngi fréquenté ay loolu la ko ci tagal ay caga hmm? waaw ne ko nag wiiri wiiri mhm. jaari ndaari faw danañ daje léegi Adji Sarr communication foofu fee damaa gis ne Adji Sarr day wax ñu xëcc ko ne ko bul wax ba mu yàgg ñu bàyyi ko mu wax tuuti la wax na dugg ci vaar ndax mu ngi weddi ëmbam ñoo xam ne bu ñu ko bàyyi journaliste yi ñu koy posé ay question mën na surux ci kàmb ñu xëcc ko ne ko kaay ñibbi waaw peut-être ñu dem préparer ko mhm. bindal ko dara ne ko waxal lii ak lii ak lii peut-être damay laaj mhm. dama xool damay def sama sama propre gis-gis bi ma gis nii ci vidéo bi bi mu def waaw toog ñu monteel ko vidéo am deful live ñu ko monteel vidéo dugal ko léegi noo gisee Adji sar moomu ki taxewoon ci tribunal ba ba tey pour man bokkul ak ki toog di waaw ok léegi kaay ma jox la benn xel bu garaaw yaa ngi dégg El Hadj Diouf moom waxam jeex na. Gabriel waxam jeex na. léegi ak dossier bi ñaata at la am problème bi. am na deux léegi moom deux ans. est-ce que xale bu am deux ans di nga wax ak moom. xale bu am yi da am moo wax ak. am ndax di nga ndax di nga ko dégg dégg di nga ko di ko déglu mu lay war a wax loo war a wax yow. déedéet Adji Sarr deux ans la am. <laughs> est xam nga loolu. non déglu ma fii bu baax. waaw Adji Sarr ñaata xar kanam la la wan ci deux ans yi. bari na aji bi njëkk a ñëw est-ce que aji bi ak aji bii benn la. Adji Sarr wax deux ans ku am ñaari at laa ko jàppe parce que depuis bi mu ñëwee nekk ngaa ko ak biñ ko nàndalee foofu laa jàpp ni moom loolu la am ci at. nit fu sa xel ak fu sa xel yam ah, at yooyu nga am. d'accord yaa ngi dégg. dama ne Sonko li mu wax ak Adji Sarr li mu wax ban moo gën a tegu. ah loolu moom mais dama ne. tey lu moo Adji bu fekkoonte ne papaam ku responsable mm-hmm. ah mais papaam li mu wax ñun dégg nañ ko. Mm-hmm. te kon papaam dana nekk ci wetam mais rus na ñu koy filmer sax di filmer waale Adji Sarr. am cest dafa. papay su papay Adji d'accord séeréer xoola séeréer. Ah. dafa am loo xam ne du ko nangu man séeréer la hmm. se seen ngor moo leen mayul loolu tey ji xoola xoolal ñiy boot Sonko ak ñiy boot Adji Sarr. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. am na ñu xam ni bu ñu commencé di leen filme ñëw ci lii ah duñ fa teg tànk. dañuy daw tey jii boo demoon keroog nee naa la kilifa yi nañ ko régler mais tey kilifa yi. soo demoon neleen wax leen ci lii soo maytul dañuy daw tëju parce que déjà dossier bi soo ko toppee ba ci biir mi ngi nërmeel ay mi ngi nërmeel ay ay imaan di nërmeel ay jullit. moo tax man la wax mbedd la kilifa wutu mais déglu ma wax la mais jullit yi ci ñàkk seen liimaan moo bari dossier boo ko toppee sa liimaan lay lekk est-ce que xam nga lool. yàlla lu mu la wax ci yu demee nii. maanaam sànq rek maa ngi koy wax ki ma toogaloon ci régie bi sànq dama gis kenn ci député yi ku ci wax danañ ñëw ci moom. waaw muy wax ba ni maa ni Adji Sarr soo àggee ragaju ko ragajul Ousmane Sonko. te li ngay wax nii dafay damay dëgg pour ma dëggalal la parce que ragaju du gis nga ni yàlla da koy tere ci alxuraan. waaw mais mais mais demal ci beneen bi. comme yàlla dangay naan diw mii kat moo ko def nàngam lan la ci yàlla wax man nee naa la ñu bëri si dossier bii mm-hmm. ñu ngi ñu ngi fàq ñu nga fàqee àjjana mm-hmm. jëm fële nga xam ni yàlla dafa ne yonent bi sa nit yaa ngi xocc jëm safara te binduma safara pour ñoom en plus Adji nee na musuta ëmb musu koo wax te Adji moo ko wax ñëpp di dégg non xoola xoola Aliou nañ génn ci wax yi dem ci réaction yi am ak ñi nga xam ne dañ cee ñàkk seen liimaan ñàkk iimaan mun taw weesu nga taxaw di seede loo fekkewul te yàlla ne la bu dossier bi xewee nii ak nii ak nii laa bëgg yow nga ñëw ni baaj yor sa sikkim wala nga yor nekk maire toog di ca wax lu xam ne boo continuer yow boo demee yomal xiyaam am problème moo ne ni xoola dossier bi ñaar la boole baaxul ci àddina baaxul alaaxira yaa ngi may dégg wala déggoom xoola taxawagul taxawaay boo xam ni dan nit dina ci jëriñu fii nit du ci jëriñu fële wax joo xam ne amul njëriñ fii amul njëriñ fee mhm. léegi wax boobu est-ce que war nañ ko jox Sénégal déedéet man li ñuy jox Sénégal laay wax waxatuma seen wax moom ay lii la ak sama papa kilifa la ak du kilifa ak affaire yooyu xoola ma ku sa pa ñi seen papa di kilifa hmm. ah hmm. doo leen gis si yenn yi de góor nag góor la rek hmm. mais jigéen ci boppam dafa am lu ko war parce que nit ki fu muwul bu mu fa mbaa bu ñu ko bu mu ko moo fa foo war dem bu xoola ndéygee del wax te bul dugg di ma wax directement quoi non non booy dugg si affaire bi da dem si Aliou direct quoi mais bul ma ne yow problème yoon nekkul ima xaw ma lan noonu kon yow sa xam nga yow xam nga yow lan ngay def nii xam nga émission bi da ngay mettil xaara xaara waa xaara xaara xaara xaara ndéygee lay wax benn affaire xaala ma wax la dara yàlla may na kuy jàngale mu ñu wane ci moom même yonent bi mhm. yàlla daf ko daf ko nekkoo xam nga yonent bi lan la exemple ma jox la ñu mm, xam nañ ko waa xaaral tuuti non dé waa doolu déglu waxal yow rek laay déglu séet ba doon fee yi ñu koy bàjjan bi di ko digal mu ne ko non xam naa ko dem pële <laughs> dem ñu yéeg si fas bi safa saw doon wàcc di saw dëgg ci ngeer yi noonu mm. jóg ndeketa day baa nga fa mu jóg rek day bi xalab mm. xam naa ko xam naa ko waxaguñu waxaguñ li ñuy wax. yaa ngi dégg. <laughs> mu xalam ko mu daanu waaw mu dem eh, di xeeñ day jëkkër ji fase ko. <laughs> loolu ngay def nii yaa ngi dégg parce que xamagoo lu may wax yaa ngi dégg waaw xoola dama ne yonent bi. Mhm. yàlla dafa ne ko kaay solal ma mbubb mii. mbubb bu mel nii. boo ko solee mu rafet ku bëgg mbubb mi ñu ñawal ko ci. lakum fi rasul booy jàngalee. xasana booy jàngal man chaque jour ma ne la émission ma damay jàngale. yaa ngi dégg su ma doon émission xoola su ma doon émission bu ma defee émission yow sax xam nga ni bu ma defee émission doo leen fi toog ñu koy dèjà ñun rek yaa ngi ñuy mbugal su ma defee émission doo leen lu tax ma duñ fi toog yow yaay kan non du ma kenn mais damaa xam ne bu dee émission la rek ah. émission ah. ndey xam naa ni ñuy émission waaye ñoom xamuñu ni ñuy émission xam non non waxuma yi si tete ndey gay man sama bopp laa xam waaw sama ñun xamuñu ko. waaw xaaral ñu ko xam xelal lépp. mais yow sa problème mooy. yow dossier bi danga bëgg dugg ci biir dossier bi ba mu jeex. te gis nga eh, boo génnewul sa bopp ci dossier bi. da koo maîtriser nag da koo maîtriser waaye doy na ñu la sànni ci dossier bi. Aliou ah. xam nga kii lu mu war man ah. musuma dugg ci dossier mais lu ma la ci wax noonu la ñuy def. moo tax ma ne ko da ngaa maîtriser. déedéet pas maîtriser man nit ñi Sénégal laay aar li si def sama yoon new fi mais daal en tout cas dëkk ku gis fa muy daanu ji tey bu ma dendoon ak président Macky Sall. Ah. yaa ngi dégg. Ah. ma dend ak Macky Sall am na yu bëri yi xew waxuma ni damaa am xel mais amaana mu bañ a xew. du dëgg su ma dendoon ak Sonko amaana mu bañ a xew su ma dendoon ak Adji Sarr. Mhm. Adji Sarr boo leen ko gisee si façon. yee ngi yéen yéen ñëpp di ngeen daw wut si ko. xoola aji saar donto li muy wax mu ngi koy wax moom dafa am lu lu luñ ko sant nu mu war a comporté woo pour ñëw wax ko wax bu nekk ak comportement am la est-ce xam nga lu tax police boo ñëwee di wax ba mu yàgg rek ñu dóor la mbéj lu loolu kuñ tooñ ak ku tooñ lañ fa indi fekkee woo ko dafa am technique bu ñuy utiliser technique mais teguñ tooguñu fa nii rek dañ leen di jox ay raccourcis yu ñuy jaar. ba mën a xam waaw pour mën a xam kii waxul dëgg ak kii wax na dëgg. am na wala amul. d'accord technique bu ñuy utiliser. mais ñoom doo ñëw nii rek léeg leen nit day toog këram naan waa bu ma demee police lii laa koy waxal bu ko defee ñu tëj ko ñooñu bu ñëwal nga wax leen ko. doo ko dolli de. Eh, yàlla si boppam yaa ngi dégg. àtte hmm. yii yëpp da koo wàcce teg ko. di wax ni bu defee nii def leen nii bu defee nii def leen nii bu defee nii def leen bàyyiwul dara am na wala amul. wax na ko mais boo ñëwee tey xool même ci tubaab wala dara ma wax la dara. àtte mhm. bii ñuy àtte. Mhm. yoon la de yaa ngi dégg. du noonu. mais dossier bi xam nga lan la ñu war a def ku ñi ciy wax yëpp. jàng yan yan kanam ñoo ci nekk yu ci war nekk ñu génne leen ci. dossier bi dafa am ay kanam yu koy yërëm. léegi su bokkul ak ñi ko war a yër suite dossier bi. waaw maanaam dossier bi fan la jëm fi mu toll nii def nañ confrontation. waaw convoqué nañu. capitaine Omar Touré. waaw lundi dana dem. waaw di déglu ko ndax avocat Sonko koy ñëw. waaw ok Omar Touré Touré. waaw Touré. Touré buy buy dem di wuy ji. yaa ngi dégg. Hmm. Touré dossier bi moo tax ñu ñu dàq ko du. waaw du noonu. bu demee wuy ji lan la fay jële moom nag pratiquement avocation Sonko yi ñoo sàkku ñu positionné ko laaj ko ndax moom dafa yor ay ay mbir yoo xam ne peut-être bu ko tegee ci taabal ji dana favorable waaw mais xam nga Touré dafa dossier bi moo tax mu ñàkk liggéey am na wala amul bu demee bu demee moom Touré ah bu fekkonte ne ñoom ñëpp ñoo d'accord si mu ñëw amu ci benn problème mm. mun da man de bu bu doon man la maay um Touré mm. ah, damay toog mais dañ ko convoqué faaw mu non dañ ko convoqué. Mm. Touré convoqué wàcc na ko bañ ko dàqe. waxal rek. d'accord waxal rek. d'accord futti ma def ma yaramu neen yaa ngi dégg woo ma ne ma nañ ànd te sol yére. mun na nangu sa lépp. waxal rek. <coughs> dootoo fayoo ko. waaw léegi xoola mu Touré moom yaa ngi dégg moom bu demee day wax nii rek mais wax dëgg yàlla amul nu mu leen di dolli. d'accord. am na wala amul donc surtout dossier bi mën nañu xaar dossier vide wala noo xam nga dossier bi lu ci nekk xoola dafa am ko xam ni mm-hmm. bi mu fi nekkee mm-hmm. mbooloo la doon jaamaar lool muy kan bopp bi tranquille lool kan la déglu ma rek bu baax di nga xam dafa am ko xam ne bi mu fi nekkee moom mm-hmm. ah benn nit lay jaamaar lool Mm. kii jaamaarloo ak mbooloo ak kii jaamaarloo ak benn nit kan la boppam gën a tranquille kii jàkkaarloo ak benn nit yaa ngi dégg wax ji dafa am dafa am ko xam ne ñaari ñaari ñaari ñaari bokk ñoo ko composé ñaari bokk ñaari bokk ñaari bokk ñoo ko sonal te loolu neexal lijjanti te xamul nuñ koy defee mm-hmm. waaw xoola damay bokk ak du bokk moo téye réew mi ñaari nit ñaari affaire damay bokk ak du bokk moo téye dossier bi léegi dossier baa ngi si loxo yooyu. d'accord nekkatul dossier wu viol yu mel noonu mais ay jugement de valeur damay bokk ak bokkuma ak kii dañ koo war a génneeg yu mel noonu. mais dégg nga damay bokk ak du bokk. waa moo téye dossier bi. ça veut damay bokk ak du bokk. non même bu dossier bi. ci ko jëmee même bu dossier bi amee. waa dafa am lu làqu ci ginnaaw dossier bi. parce que bu fekkante ne opposition bi li gë li tax ñu gën a xuus ci dossier bi moom mooy pour ñoom bu la mille 2024 ñu taxaw am na wala amul mais kii Aliou lan mooy état état mooy artu balaa balaa dara di mu taxaw état mooy ku xam ni lu mu amul intérêt du ko xool du ci dox sax di jëndiwu waaw c'est sénégalais mm. yi sax léeg-léeg dañuy nekk dinaan état moo def lii moo def laa xoola état lu mu def yomb na xam li muy dugg yomb na xam li mu dul dugg yomb na xam waxuma ni dañoo dugg ci dara mm. mais dafa am ñu xam ni dañoo ngembal ñi ñi ngembal ñee kenn ku nekk di bëreel mbër moo xam ne bëreegut d'accord au passage comme yaa ngi tudd état maa ngi félicité monsieur le maire Bara Gaye bu yëmbal sud ndax euh, fii laa toogoon un jour di wax ni tali bi foofu ni mu mel